taxawaay bi nga xam ni am nañ ko tey muy euh, société civile ñu leen ci remercier bu baax a baax ak yenn euh, presse bi ak euh, mboolem étudiants yi fi nekk yëpp dafa ni wane ni waxtaan bi am na solo ndax wax solo bi mooy xam nga ni lii nga xam ne jëm na ci wàllu mine wàllu pétrole ak lépp am na ay jumtukaay yoo xam ni nguur gi taxawal na ko soo xoolee ci code minier bi nga xam ne en 2016 la ko jiitu woon sax en 2003 taxawaloon lu tuddee mooy fonds d' appui et de péréquation yoo xam ni euh, benn fonds la boo xam ni ta jógul lu lul euh, communes yi maires yi ak commune communauté rurale yi loolu ba mu amee mooy euh, danoo xool bu dee téeméer bu ne ñaar fukk yi nga xam ne moom mooy gox goxaate loolu la ñu tuddee fonds d' et de péréquation des collectivités territoriales beneen état bi jël mooy téeméer bu ne jaral na ci ñaar fukk. jagleel ko secteur minier maanaam euh, institution yi nga xam ni noo war a gëstu war a xool defar ay carte ak ay jumtukaay yi war a mën a tax nu mën a xam lan moo nekk suñu biir réew ci biir suuf sol bi waaye tamit euh, war a mën a fexe ba képp koo xam ne am nga intention ba am nga mbébét pour liggéey ci wàllu mine nga mën a am ay information yu doy sëkk beneen fànn bi mooy euh, ci wàllu pétrole ak gaz ndax xam nga boo leen xool Sénégal ci at yin jëm noo ngi jublu ci exploiter sunu pétrole ak sunu gaz am na ay taxawaay gu mat sëkk goo xam ne nguur gi def na ko ci jëm ci wàllu euh, am na loi bu defar loi bi mooy alal ji cay génne nan lañ koy jariñoo euh, la cay njëkk mooy lépp loo xam ne alal la jóge ci wàllu pétrole ak ci gaz day dugg ci keesu nguur gi benn ñaareel bu bu ci duggee nan lañ koy séddalee nan koy séddalee mooy téeméer bu ne juróom-ñeent fukk yi dañ ko jël def ko ci wàllu budget réew mi te dinañ ko jël uniquement mu nekk loo xam ne day am investissement pour askan bi duñ ci fay saleer duñ ci fay indemnité duñ ci jàppale nit duñ ci jàppale kenn lépp ci wàllu defar réew mi la jëm mooy 90 pour cent yi. dina am tamit euh, ci téeméer bu ne dina jël fukk yoo xam dañ koy jagleel ñi nga xam ne fekkewuñu te xam ni réew mi euh, du nun rek noo fi ne am na ñeneen ñoo xam ne comme ni nu ko suñuy waajur ak suñuy maam bàyyilee nu it noonu lañ koy bàyyilee suñuy doom ak suñuy loolu moo tax nguur gi jël lu mat 10 euh, pour cent ni da koy def ci ci xaalis boobu pour euh, jagaleel ko ñi nga xam ni di leen fekkee waxtaanu Sénégal amoon na pétrole Sénégal amoon na gaz waaye loolu fekku na leen ci waaye alal ci di leen fekk investissement bi nga xam ne moom lañ ci fas yéene def mooy lépp loo xam ne day indi dëgëraay xam nga du xaalis boo xam ne dañ koy denc. parce que mënoon am yaakaar ni am réew buy dox am na ay jumtukaay yoo xam ne ala kulli àlli nañ koy soxla jëm ci wàllu école jëm ci wàllu hôpital jëm ci wàllu tali kon waroon mën a am yaakaar ni suñuy doom ak suñuy sët ak ñeneen yi nga xam ni incha allah bu yàlla defee jàmm dañuy nekk fii ci réew mi dina soxla loolu kon moo tax nguur gi jël ci alal jooju suuraale leen ci yooyu yëpp nag ay taxawaay la yu mat sëkk la yoo xam ni dafa baax te dafa baaxoon ñu xam ko ngeen xam ko euh, askan bi xam ko. noo xam ne réew mi nag foofu lañ toll ci wàllu mine ci pétrole ak ci wàllu gaz. waaw xam nga communication bi dafa am solo comme li may faral di wax yéen yéen a ci war a jiitu ak euh, képp koo xam ni yëf yi na la euh, ndax dafa baax sénégalais di xam li xew euh, di xam ne lii la fii la réew mi toll fii lañ toll boo xoolee ci wàllu mine li ci ëpp su suñuy wax Sénégal jamono yi mooy diggante or pétrole gaz soo xoolee ci wàllu or 2021 gën génn nii. Euh, Sénégal noo ngi exploité ci or lu toll ci fukki tonnes ak juróom-benn ba nuy door 2008 maanaam fukki at ca gannaaw noo ngi toll woon ñeenti tonnes la daan def par at soo xoolee diggante deux 2008 ba léegi maanaam ci fukki at ak ñaari yi weesu Sénégal li mu exploité ci or yëpp te nu siiwal ko mu ngi toll ci téeméeri tonnes téeméeri ton lan exploité ci or. am na ay réew yoo xam ne sax jarta xeeb parce que tamit euh, lu wàññi woo des ci benn lay commencé mais réew yi nga xam ne ñoo ngi wër. sooy xool ñoom noo ngi exploité or nii noo ngi def juróom-benn fukki tonne ba téeméeri tonne ak juróom fukk par at xam nga loolu ak bokk bokkunoo lu jëm ci wàllu pétrole bi tamit euh, coow li bëri na ku nekk a ngi wax ku ne naan gaz pétrole sama nangam nangam nangam mais ci xayma yi nga xam ne jot nañ kaa defagum mooy euh, at mu ne dina def ci téeméeri junni euh, baril pétrole la ñuy génne. te xam nga loolu euh, sooy xool ak àdduna bi fi mu toll ak production àdduna fi mu toll nga xam ne ay téeméeri million la xam nga ni kon lañuy nar a indi ci marché bi nekkul loo xam ni euh, am na solo loolu kon Sénégal euh, fi mu toll bu doon bu doon as doom la danaan la noo ngi toll ci tànku raam baa jàng dox ci wàllu miin ak ci wàllu pétrole wàllu gaz mais nag réew mi nekk na ci loxo yoo xam ni xool na yan taxawaay lañ war a mën ak jumtukaay Eh, li nga xam ne am na ci yeneen réew du fi mënti am te la war a jiitu mooy eh, am na ay jumtukaay ci wàllu yoon ci wàllu xarala ak ci wàllu institution mais dafa baax it nuy wax sénégalais li nga xam ne moo fi ne te information bu dëggu ak dëgg loolu dafa war a nekk loo xam ne dafa war a soxlaa ñun ñëpp parce que lii am muy pétrole muy gaz ak lu mënti doon pour nit ñi mën a ñëw investir ci réew day fekk réew ma nekk ci jàmm nit ñi àndandoo bokkandoo ndey ak bàyyi di liggéey pour réew mën a dem ci kanam. te loolu yéen en tant que média yi en tant que presse yi am ngeen rôle bu rëy bu ngeen ci war a def autorité yi am nañ ci rôle bu ñu ci war a def mooy toog di waxtaan ak di informer nit ñi parce que ci biir information ci la lépp di leere parce que li nga xam ne du dëgg mën naa gaaw a siiw waaye ay fanam du gudd. kon nag yaakaar naa ni euh, taxawaay bi nga xam ni euh, waa forum civil ak organisation société civile ak seen i partenaires yi ak yéen presse yi li ngeen organisé nekk na lu am solo loo xam ni benn jéego la ci kanam buy permettre sénégalais yi mën a comprendre li nga xam ne moom mooy wàllu mine wàllu pétrole ak wàllu gaz. xam nga contenu local dafa nekk euh, benn jumtukaay boo xam ni li ca la ca ëppoon mooy booy xool ci ay jamono ñi daan ñëw fii di liggéey bitim réew la di jógee. indi seen i alal waaye tamit indi nit ña ni àndal liggéey jumtukaay yooyu na daan am nag ba tax tey lii xew dañ ni ko nan indi ay coppite coppite gi mooy Sénégal booy xool am na ay gone am na ay ñoo xam ne jàng nañu am nañu diplôme war nañoo mën liggéey bi nan jéem a fexe ba ñoo ñu nekk ci biir entreprise yi société pétrolière yi société minière yi pour mën a am liggéey ndax am xëy. am na ko yaakaar lool mu jóge ci wàllu mine pétrole ak gaz loolu mooy wàllu contenu local beneen fànn bi tamit mooy ci wàllu koom-koom gi xam nga ni booy dégg mine pétrole gaz loo ci mënti dégg rek day rëy bu dee ci alal ji ñuy dugal rëy na bu dee la ñuy produire rëy na bu dee lan koy jaayee rëy na kon loolu lépp nag bu amee cim réew ku nekk naan nangami milliard lañ fa def nangami milliard lañ te génnee nangam nangam dafay baax ñi nga xam ne yor nañu koom-koom yore entreprise ñi nga xam ne yëngatu mën cee am seen wàll loolu moo tax état bi créé euh, benn loi def lu ñu tuddee fonds d' appui au développement des contenus local pour jéem a fexe nan la fexe ba entreprise yi nga xam ni noo ngi nekk ci Sénégal doomu Sénégalais yi ngi nekk fi bëgg amal développement ci réew mi na leen mën a jàppale ba loolu gën a mën a yaatu loolu nag euh, ay jéego la yoo xam ni étape par étape ndax rek xam nga mënoo xëy rek daw il faut nu jéem cee ànd li ci war a jiitu nag toujours dama koy fàttali mooy na jàmm di di koy wax di koy def di koy doxee parce que yëpp mu mun a nekk il faut que réew mi nekk ci jàmm nit ñi di wax jàmm nekk ci condition yi nga xam ni non seulement ñun suñu bopp dina mën a fexe suñu réew avancé mais ñeneen ñi nga xam ne am nañu yaakaar ak yéen a ñëw Sénégal pour liggéey fi ñoo ñu mun fay ñëw ci dal ànd ak ñun ci li nga xam ne bugg nañ ko mooy soppi suñu réew mu avancé te développé. waaw euh, balaa may àgg si lu ñu gën damay commencer par euh, sant. Euh, suñu partenaire financier muy USAID moo xam ne moo fexe ba lii lépp am en terme d' accompagnement euh, financier mais aussi suñu yeneen partenaire ONG 3D mais aussi Energy ay ñu seqal liggéey bi euh, te li ko waral lépp mooy lan mooy li ñu yàgg def mooy nekk ci wetu population yi di leen xamal di leen gunge nest pas di leen yee pour que. Euh, lu ñu war a xam xam ko nu ñu war a taxawee taxawee ko ba kenn du leen nax kenn du leen réeral ba aussi dëkk bi du nekk ci guuta du nekk ci ay problème loolu moo tax ñu dajale fi tey euh, benn pàcc ci euh, nit ñi dañ ko def ci yeneen pàcc pour que nit ñi xam li ñu war a xam gunge leen ci lañu bëgg a def mais aussi kenn du leen nax di leen jox ay information yoo xam ne baaxul di leen xalaat loolu loo xam ne waruñu ko xalaat. yéen xam ngeen si dara parce que yéen euh, euh, daanaka bis bu nekk euh, ngeen jox ñu ay information si ay problèmes yu nekk ci gox-goxaan yi au mine mines à l'exploitation minière de telle sorte que yu ci bari ñàkk xam daf si nekk. ñàkk xam daf si nekk ba tax ne nit ko bu xamul rek mën na taxawee noo xam ne waru ko taxawee mën nañ ko nax aussi te waruñu ko war a nax moo tax thème bi tey mooy lii euh, ëmb ci yoon alal ji ñuy jëlee ci mbel yi ci euh, alalu bi nekk ci suufu euh, suuf suuf si état Sénégal nan la ko tëralee. nan la koy jëlee mais nan la koy séddalee parce que loolu bu ko ñëpp xamee rek coow li dina wàññeeku bu jeexul tamit te bu boobaa aussi nit ñi nañ mën a contrôler seen bopp xaalis bi ñu war a jot bu ñu ko jotee aussi dinañ topp ñi ko war a jëfandikoo pour que ñoom ñu génne ci ay situation ay ay ay ay jafe-jafe yi ñu nekk mais ku xamul rek yaa ngi ci déjà ci erreur. donc atelier tay bi loolu la fexe ba nit ñi xam lan moo tënk liy jóge ci alal ci suuf si pour que bu ñu xamee loolu maintenant xam bu ñu ko jotee aussi nan lañ ko war a dépenser ak fan lañ ko war a dépenser kan moo ko war a dépenser ci ban anam la ko war a dépenser parce que nit ñi bu loo leeree seen bopp rek di comme ni ma ko waxee sànq jàmm dinañ ko mën a yaakaar ci réew mi. waaw waaw digle yi euh, tubaab di wax ay recommandations. Euh, ñu ngi koy xaar ci ñi ñu fi invité parce que ñun euh, si li ñu yaakaar def nañu waroon def oo leen andi ki xam mbir mi expliquer leen wax leen maintenant ñoom nag bu ñu déglee li ñu leen wax ba comprendre ko dañ leen bëgg ñoom ñoom it comme ñoom ñoom ñoom moom dëkk bi ñu wax ñoom nan lañ ko gisee lan lañ ci d'accord lan lañ ci d'accordul liñ ci d'accordul lan lañ ci euh, proposé bëgg ñu jooyanti ko. pour que alal ji ñu yaakaar jël si suuf si ak ak yi ñu commencé déjà jël si suuf si mu gën a ñoŋ ba nit ñëpp mën si gis sa boppam Sénégal mën a nekk si jàmm ku nekk li nga war a xam nga xam ko mais dëkk bi dafa bari euh, ay réer parce que li ñu constaté mooy dunañ ju ñëpp mais am na ñu bari ñuy wax ci mbir mi euh, am na loo xam ne dese nañ ko ci euh, xam. te loolu baaxul ci dëkk parce que day andi ay problème yoo xam ne ñun ñëpp ñoo siy gaañu problème yooyu bu jógee kaw.